on est en démocratie. muy assemblée nous on n'a pas de problème par rapport à ça. Mm-hmm. muy assemblée président de la république. constitution bi joxu leen prérogative ñu reporter la tenue d'une élection présidentielle. on est d'accord. alors loolu bu bu dee am na loolu bu doon am na. Mm. li mooy président sumb waxtaan avec les institutions. mais président ah, mais ak conseil constitutionnel ak assemblée ñu ñu ak peut-être ak acteurs yi. ñu pencoo ko mais président de la République mënul euh, abroger le décret de convocation du corps électoral Assemblée nationale euh, apporter une dérogation aux dispositions de l'article 31 euh, introduire nu mu tudd la laal la clause d'éternité sur la durée du mandat ba pare introduire si euh, des des des considérations euh, euh, nu mu tudd personnelles c'est-à-dire c'est la première fois ma gis ñuy voter une loi au Sénégal ñu naan la date de l'élection est fixée au décembre. Et d'ailleurs, le Conseil le dit, euh, une loi, elle est générale, un caractère général et impersonnel. C'est-à-dire, ñoom ñi ko def du seen cër amuñu doole boobu. En 2007, dañoo dañu dañoo reporté élection législative yi mais l'élection qui devait se tenir lieu qui qui devait tenir lieu qui devait se être tenue en mai 2006 est reportée. à je ne on l'a on l'a mis dans la constitution 2007 mu nga vérifier c'est mis dans la constitution l'élection les, les législatives de xam nga 2006 la ñu waroon def législative bi législative kañ ñu lu bees mais yow xam nga ne yow yow yow monsieur le ministre une loi elle a un caractère général et impersonnel dama la citer rek benn exemple dañu def ci constitution bi dañu defoon une loi par dérogation à la date des élections législatives qui devaient se tenir en 2006 l'élection est reportée jusqu'en 2007 def nañ ko en 2007 où le problème. peut-être c'était une violation non non relevée. <laughs> très bien voilà <laughs> dès lors que le conseil constitutionnel dit parce que loolu laay wax encore une fois démocratie mooy na ku nekk def sa rôle. député yi def nañu li nga xamante ne ñoom loolu la ñu yaakaar lool la leen situation mayoon moom la ñu war def seen commission d'enquête parlementaire initiée proposition la république gis loolu reporté euh, euh, euh, abrogé décret bi. ñu attaqué loi bi devant le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel annule la loi mais même na waruñu féliciter sant yàlla on est une démocratie. on est une grande démocratie. très bien loolu laay wax nag tubaab bi. su may toutes les institu institutions ont joué leur rôle. Union africaine nag su ma fa demee. CEDEAO dëkk tubaab bi laa leen di wax dama leen di wax ne yéen ñun ñoo leen gën a yàgg ci démocratie li ñu organisé ci élection présidentielle yéen organisé wu ko li ñu organisé ay élection législative organisé wu leen ko sénégalais yi ni ñu xamee élection. am culture électorale ci dëkku tubaab yu bari ñun ñoo leen ko ëpp suñu réew les institutions son fortes suñu réew le jeu des institutions est normal suñu jeu la respiration des institutions républicaines est normale suñu réew su problème amee c'est les institutions qui le règlent nous on n'a pas besoin de médiation internationale nous on n'a pas besoin qu'on nous envoie un ancien président pour mu ñëw rencontrer président de la République dem rencontrer opposition dem rencontrer soxlawuñu ko nous avons une suffisance en matière de pratique constitutionnelle soxlawuñu ay interférence moo tax les tout tout tout tout tout tous les organismes aussi yi xam ne ñu doon wax dañuy wax ay wuy élection yi war nga dama leen ne xoolaan ñun on est démocratie ci yéen ñu bari ñun ñoo leen gën nekk sax démocratie pays européen am na pays européen yu bari yoo xam ne Sénégal boo leen njëkk a nekk démocratie bi ñu commencé suñu yéen commencé wu leen ko des institutions fortes ñun on des mécanismes et des ressorts de régulation institutionnelle qui sont huilés depuis des années et des années on n'a pas de problème donc faites-nous confiance on sait régler nos problèmes pas d'ingérence pas d'interférence pas d'immixtion dans nos affaires nous avons la maturité démocratique nous avons une culture des institutions nous avons une expérience électorale qui faut que amuñu problème pour lii ñu am nii Sénégal vous allez voir les choses vont se régler d'elles-mêmes par le jeu des institutions. et ça s'est réglé par le jeu des institutions. sauf que aujourd'hui quel le problème. l'Assemblée a fait ce qu'elle avait à faire le président a fait ce qu'il croyait devoir faire le juge a fait ce qu'il devoir en fait vous savez il y a des pays yoo xam ne si le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel avait avait fait ça président l'a am. Sénégal fii euh, conseil conseil mos na fi bind benn décision benn président du ma ko cité bind leet ne leen d' ma ci d' accord ma ci li ngeen wax ci conseil ci ci ci affaire bi mais fii le président lu mu wax je respecte je suis d' accord c' est un démocrate c' est un républicain mais mais mais monsieur le ministre. qui accepte les décisions de justice. Euh, donc moo tax je veux connaître le problème moo tax CEDEAO. mais si y' a un on va faire le communiqué le Sénégal j'ai dit pourquoi vous allez faire. il y il y non pour dire de respecter la décision ma je le président a déjà dit qu'on la décision donc vous allez dire quoi. xam lu tax non finalement on retire le Sénégal de l'ordre du jour. xam lu tax y' a un <laughs>